sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka wa xaliilihi wa xabibihi alayhi salaatu wassalaam bi alihi wa sahbihi wa ahbabtahu wa axtartahu wa raditahu lahu fi lxaali walmaali bila aafatin wala kadarin qabla lhibati وعند وصولها وبعد وصولها أبدا آمين يا رب العالمين subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh ñu ngi nuyu bokk yu tedd yi fi teew yépp di yëkkati suñu kàddu ci ndigalam ki nga xam ne ci ndigalam ak ñaanam digleem ci lañ fi tee muy Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax liggéey bii kat mooy borom liggéey bi ndax moo fi nekk Serigne Touba lu ñu ciy def itam ci ndigalam lañ koy defee sañu cee yëkkati bant te amul ci liggéey ci moom fu ñu ci yem looy fa lañ cee yem lépp luñ ci war a def it lay jiitu mooy dem laaj ko ndigal ba jox ñu ndigal ñu door a kon ci turam lañ leen di nuyu maag sama bokk yu tedd yi ma àndal nga xam ne daanaka njabootu Serigne Touba gi ñi ci ëpp ñëw nañu ndax xam ngeen leen ñëpp ay kilifa yu mag lañ kenn amu ci jot ku ci ne yaa ngi teewal kër yu mag yoo xam ne jëmmal diggante Serigne Touba ak bokkañam àndoon ak magitaal bi ma àndoon loolu rek a tax ñu fi nag kenn amu ci jot ku ci ne boo yebaloo ndaw mu doy kon cant gi sax jëru ko ndax seen bopp lañ koy defal ndax seen yëfa waaye kon Cheikh mu Mountakha ñu ngi yeesal cantam ak ngërëmam ci yéen mi xam ne liggéey bi na ngeen ko daan defee ci kilifaam yoo ko jëkk wet li ngeen ko ci gunge ngeen ko ci ànd ngeen moom lépp kon ñu ngi ñaan na seen maam yu teddee àndewoon Serigne Touba te yéen itam ngeen àndee moom noonu. yàlla ngeen ci daje payu yàlla day cee ngërëmu Sëriñ Tuubaa di nuyu mboolem kilifa yi fi teew ci wàllu àdduna di ko teg ci loxol gouverneur de la région di Diourbel nga xam ne bi mu fi door a ñëw di ku baax di taalibe yàlla defal ko tew tawféex ñu indi ko fi waaye diggante bi li muy gàtt gàtt amu ko fi lu ëpp ñaari ay bis waaye. dox na fi jéego yu am solo ndax bi mu àndeek waa assainissement ndax amoon nañ jafe-jafe ma boole woon na nag sëñ Abdou Lahad Ka ñu ànd di wër ndax fu ñu yóbbu ndoxum Tuubaa mi doonoon na jafe-jafe danaa ci dellusiwaat sax waaye mu jafe lool te Daaru Rahman xam ngeen ne bassin bu njëkk ba ak poof di fa lañ ko def te condition yi metti na ndax ndox xam ngeen ne fu mu bari yoon ya du baax dana bari it yuy lore day yàq environnement kon loolu itam danaa ci leer laa lu gàtt ndax waxoon naa ko directeur assainissement soññu ko ne ko nañ fexe ba gën a sécuriser foofa fexe ba it liggéey bi di amal njëriñ nit ñi ndax ndox mu toll noonu mën nañ ko utiliser ci mbay comme ni ko réew réewu tubaab yi defee biñ ci amee jafe-jafe rek yàlla def ak Cheikh Mouhamadou Mountakha yëg ne fi ñu wax kër kàbbu ñoom bi ñu xoolee foofu wax na ne mooy fi gën a baax waaye jafe-jafe rek mooy ni ñu ni ñu mën a fexe ba jot ci fekk solution bu ne def nañ ko maa gouverneur ak Abdoulaye Harka ñoo bokk toog ak service yëpp ñoo ko ko sante bañ xool ba gis na kër kàbbu lañ gis soo xam ne lañ bëgg lépp attanoo te mooy fa gën ci ñoom bañ ko yégalee sëriñ bi nag sëriñ bi jokkook sëriñ Ahmadu Maxtaar rakkam wax ko ko ndax ci kilifteefam la nekk si ma ne ko jërutoon nga di ma ko yëgal ndax yaa ma yilif yilif suuf sa kon sëriñ bi ci boppam moom ma yónniwaat ci moom ne ma naa ko ko santal gërëmal ko ko ci taxawaay bu rafet boobu nga xam ne si ma defal na ko kon di can nuyu gouverneur ci wet googu di nuyu perefe ak suuf perefe bu ndaam ci seen taxawaay ci li weesu ci liggéey bi mboolem chef de service yi fi teew yëpp nag bàyyiwuma kenn ba ci ñor yor wàllu santé wàllu sécurité police ak gendarmerie ak sapeur pompier bàyyiwuñ kenn xam naa si Ousmane buy lim dana ci gën a dugg di nuyu itam ñi nga xam ne ñooy journaliste yi nga xam ne ñoo koy jàll ba ñëpp mën koo accès kon di sant yàlla bu baax rek ci bu ñu suñ borom mayee ak fekk akuk tal bañ teewaat fii ci waxtu wi di waajalaat màggal Tuuba ndax xam ngeen ne ñaari at yi weesu yëpp màggal nañ ko ni ko Sëriñ Tuuba digle waaye màggal nañ ko ci condition yi jafe woon ci nit ñi positifum nit ñi ak seenu dogu ak seenu jaayante ak seen wane ne Sëñ Tuubaa wéye ndigalu Sëñ Tuubaa moo leen gën a seen bakkan moo tax ñu màggal ko kon loolu liñ ci war a njëkk jànge te war ko ci gën a dërloo mooy ndigal du lore ndax boobu kat képp ku doon jëfandikoo sam xel la nga doon wax mooy màggal gi nañ ko andiré waaye loolu suñ bakkan jëraluñu ko ñàkk way ndigalu suñ Tuubaa suñ bakkan jëraluñu ko kon nag santaat yàlla bu baax ndax fii lañ daa toog di ko fi waxtaane muy lu jafe màggal nañ ko ñaari mu jàll jàmm màggal buñ ci agsi ci kàttanu yàlla mii def di dindi ak ni mu faree suñ Tuubaa màggal ci agsi buñ ci àggee lépp wàcc màggal gi jàll mu yéegaat kon loolu wane na ne comme dalul xel sa digg ak suñ Tuubaa yaakaar naa sama xel dootu dalati bu kon ñuy ñaan rek màggal gi ñu dugg ñu dugg ci te yëf yi bañ a yëkkatikuwaat ndax jàngoor moom suñ borom moo koy indi mooy xam na tax mu di ko def kon yànd na ko gën a jeexal ba ñëpp gaynde ne ci jàmm di sant bu baax rek ñi fi teew te fa séenee waxtaane liggéey bi xam naa buñ duggee ji ba ci biir ñi ci kilifa yi ci war a wax danañ ci wax ñu bokk ci comité organisation bi danañ ci wax waaye li ci am solo rek mooy màggal gi day ndigalu Serigne Touba liñ ciy def lépp itam roy Serigne Touba lañ koy def ndax sëriñ bi ci njaarim gii ñu nekk tey di ko fi defee fii la ko njëkk a woote sëñ Moulay bu sax xam ngeen ne gàtt ba ba ci sëñ bi njëkk rey moom la ko sëriñ bi moo ko joxoon Serigne bi àddiya ak na ko sëriñ bi seddiloo ca at moom wala ma ca topp sëñ Balla Fally Dieng la sëriñ bi jox ndigal ne ko na wax ñëpp nañ nga ko dundal kon luñ ciy def rek roy ndigalu sëñ Tuubaa la sëriñ bi fonkoon ko lool ni ma ko waxee woon daaw saa su ma saan agsi fu ne lañuy defee ay teraanga indi ko bu agsee bu ñu sëlmalee tisbaar sëriñ bi tiim ko ñu seddalu ko ci dëkk bi yëpp ñoo xam ne bis bi agsi na ndax màggal gi bisu ndam la bisu feet la bisu victoire la la suñu kilifa bu baax nga Cheikh Abdou ndax Mbacké daa wax lu mat di fàttali la mooy suñu bisu fête indépendance boo ko waxee nag day day nuru baat bu rëy ndax réew mi dañu ko seqe ñëpp waaye màggal gi bu amutoon duñ jot suñu bopp ni ni ko suñ Moussa ko waxee bu demutoon wolof nasaraanu te ko ñëpp dem dem sa war a kon màggal gi mooy suñu bisu fête indépendance ci lañu jot suñu bopp moo tax lislaam mën a tasaaroo ci Sénégal bañ na ko ba bi sëriñ bi ñibbisee sax ci la ndaje yi diine yëpp tàmbali kon wane na ne sëriñ Touba bañ ko yóbbu bu del siwutoon fa la lislaam di fay kon màggal gi ci la Sénégal jot seen bopp kon tawféex ji it mooy dem na ba ñëpp maase jàppe ko seen yëf waxuma ñi yaakaar sëriñ Touba waaye mboolem ku di jullit màggal gi sa alali boppam ko def te sëriñ Touba noonu la ko yéene woon ndax laa nu fariqu bayna ahadin min rusulihi te Serigne Touba loolu moo li jiitoon ci woote mooy jul yëpp nekk benn kon nag alhamdulilahi rabbil alamin kon nag ñu fas yéene dugg si jàmm ni ñu ko daa waajale rek fas nañ ko yéenee def yokk ko waaye du wàññi ko ndax mbirum Serigne Touba kulliyati mu'jizatun taaxar lu mujj rek day gàcceel la weesu ni ñu ko baaxoo defee rek bu ñu àggee ca première safar ba ba sëriñ bi wooteel ko boppam njàngum alxuraan bi ak xasiri bi daal day daal di tàmbali ba àgg ca màggal bi am na benn musaabaxa xuraaniya boo xam ne ñu jàmbaare ñoo am mubaadara bi ñu ngi koy tàmbulee ci bu safar duggee jeexale ko ci rabia safar rabia safar xam ngeen ne sëriñ bi tudd na ko kon loolu lu am solo ndax sëriñ Tuubaa lu ñu koy defal ak alxuraan ci war a jiitu ci wàllu commité organisation bi itam li nga xam ne fas nañ ko yéen def mboolem lu ñu daa def soppiwuñ ci dara lépp dañ ko yokk mboolem conférence yi nga xam ne commission culture ak communication bi suñu Abdoul Ahad Mbacké jiite daana ko def soppiwuñ ci dara daa waa daayira Rawdu Rayaahin nga xam ne ñoo jiite wàllu culture lañ daa def mboolem conférence yi ñuy def ci penc yëpp danañ ko def te bu buñ ci àggee bu ñu amul lenn ngànt wala ndigalu sëñ bi dem ñu yëpp danañ ko fekkee incha allah bu bu mënta nekk nag ku fa teew rek ñoo xam ne moo fa teewul sëñ bi kon loolu dara soppiku ci mboolem programme yi ñu daa def ren incha allah fa nañ yéen wooyu lépp li nga xam ne danañ ko ci dolli ren rek mooy benn ndajem diine mu mag boo xam ne ndaje international lay doon mi yi danañ ci invité fukki réew ak juróom Sénégal door a ñëw muy fukki juróom-benn mboolem continent yi dana am ñu fa jóge te yëpp tànn nañ leen ba noppi ba incha allah dana ñëw te biir Touba lañ ko defee ci résidence Cheikhoul Khadim mu nekk ndaje mu rëy moo xam ne gën a wane Serigne Touba lañ ci jublu mi ngi tàmbali le 6 safar nga xam dana fekk màggal gi des ab diir ba nit ñi mën koo dund. mën a gën a jànge lu bari ci Sëñ Tuubaa ñoom ña ñuy woo ñu ñëw itam buñ dikkee danañ leen wan lan yoon lan mooy yoonu murit jàngal leen lan mooy cosaanu yoon wi ndaje ma nag li ci ëpp mooy yoonu murit ak xam-xam yoonu murit ak diine Tuubaa dëkkub xam-xam dëkkub diine loolu mooy thème bi ci biir loolu nag dana am ay ay waxtaan yu bari ndax ay fan lay doon bokk na ca lañuy ñuy njëkk a def la jiitu mooy bu ñu wàccee danañ jaar Masaalikul Jinaan ngir gis ndax liggéey bu rëy la boo xam ne ci sumb yoon yi gën a màgg la bokk bu ñu fa bàyyi ko danañ jaar njaarim siyaare kër gu mag xool fi sëriñ bi fi ñu ko mujjee gis ci saaxir jaar ci jumaa njaarim xam ne sëriñ Touba moo ko taxawal ci biir ak nekkam bu ñu fa jógee ñëw Touba bu ñu agsee Touba nag li njëkk a def mooy dem ci jumaa ji siyaare ji Seexul Xadim bu ñu fa jógee siyaare ki ko fi nekkal di Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax loolu mooy li jëkk ci li ñu war a def du ñàkk nag yu fàtte ci biir na yi waaye buñ demee ba àgg ca ko war a leeral danañ ko leeral buñ fa jógee danay siyaare ji maktabatu Cheikhul Xadim mooy daari kaamil ndax foofa xam ngeen ne lu rëy sa fa nekk jeexit Sëñ Tuubaa ju rëy ndax faw ñu wan leen jàngal leen li nga xam ne yoonu murit am na ko ñu gis ko xam ne waaqoon mal muus la buñ fa jógee danañ dem université bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha sumb na ko def ca milliards yu bare bari yoo xam ne ku ko tuddoon tey dana jaaxal nit ñi ñoo xam ne yoon bi kon waxtu ne nam soso woon ca raabe ca Cheikh Mouhamadou Moustapha ba nëgë ni noonu lay wéyee ak taalibe ci jàpp yëpp buñ fa jógee itam danañ tànn lenn ci quartier dëkk yi nga xam ne kilifa yi ñoo ko sanc ci ndigalu sëriñ bi bokk na ca Gede dëkku suñu bàkki so ndax xam ngeen li ma représenté joolu bokk na ci it danañ dem ndaam visité ko visité la fa nekk ci daara ak xam-xam ndax Cheikh Mouhamadou Mourtada Cheikh Mouhamadou Mourtada defe na fa liggéey bu rëy ci biir loolu itam daaray cosaan yi danañ fa dem xool ko bokk na ci daayira Serigne Souhaïbou bokk na ci daayira Serigne Abibu ak yeneen Serigne Abibu ndax xam ngeen ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko tuxal si woon moo ko fi indi woon muy jàngal Cheikh Abdoul Ahad ñoom ak Serigne Cheikh ak Serigne Bakk Madina daara ji ba na gëni tey la gën a dund bokk na ci itam daaray sëriñ as jaxate ji ci biir jumaa ji nga xam ne Cheikh Mamadou Fadil moo ko sampoo mu ne ci biir jumaa ji ndax sëriñ Tuubaa dafa wax ne waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikri wa tafahumi bokk na ci barab yi nga xam danañ ko ziyaare mooy xisbu tarxiya ndax xisbu tarxiya alali sëriñ Tuubaa la te ku fa ku fa dem da nga xam li nga xam ne yoon mu réalisé la ko bokk na ci réalisation yi danañ leen wan raay bi ndax raay bi ñoo xam condition yi ñu ko liggéey ak hôpital Matlaboul Fawzayni bi nga xam ne murid yee ko tabax ci seen alal te loolu bariwul ci histoire fu mu am li ñëw ak saxaafa al muridiyya culture murid murid dañu am seen culture bopp ndax gis nañ ne exposé yi gën a màgg ci ci ci àdduna tey boo fa demee dangay fekk murid yi di soli baylaat di takki maxtu ngir ñàkk complexe gi Sëriñ Tuubaa def ci ñoom loolu itam culture murid dafa bari danañ leen gën a wan lii culture yoonu murid nga xam ne réewuñ ko fenn te day mel ni fii rek la bokk na ci loola kaamil yi ñuy bind ci loxo tey boo xooloon Tuubaa liñ fi bind ci kaamil ci loxo kenn xamul lu mu toll loolu itam daañu leen kon ñu xool gis ko xam ni mu demee bokk na ci liñ leen bëgg a wan itam mooy lang riis gi nga xam ne làngooru riis na ko te am kilifa yu baax yu ci liggéey liggéey bu rëy ku mel ne sëñ Mbay Jaxate sëñ Babacar Jaxate sëñ musaaka Ka sëñ Mor Kayre Seex Sàmb Jaara Mbay ak ñeneen ñooy demee ba ci nëgë ñi nga xam ne ñu ngi taylu ci wàllu wolof gën la dëgëral loolu kon loolu bokk na ci ñàkkut nag yoo fàtte ndax day lu gudd te jataay bi lay jut loolu waaye kon ñi ngi umbee loolu di nuyu rek ñi nga xam ne ñoo fi teew tàmbalee nuyoo bi ci gouverneur bi ma ko waxoon di ko yóbbanteem nuyoo ci kilifaam yi fi teew yi ko fi teew yi mu fi teewal tàmbalee ko ci ministre de l'Intérieur Antoine Diome nga xam ne ñëpp xam nañ ni mu demee ci yoon wi di taalibe sëriñ bi taalibe bu yàgg nga xam ne ñu fi dëkk ñëpp xam nañ ko. di di ko yóbbanteem yooyu ci président de la république Macky Sall moom mi nga xam ne liñ ciy def ci ndigalam lañ koy def te lam ca war a taxaw it lam ca lépp def na ko ca kon ci tuur sëriñ bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di tënk tuuti rek ci waajtaayu màggal gi ndax yi ci ëpp solo am na ci yoo xam ne ren teel giñ teel a waajal màggal gi xaw nañu ci dimbali kon yenn ak cant lay doon. yi ci recette ak ñaax lay doon ndax ñu gën a góorgóorlu cant gi la ci jiitu mooy ren ñeenti forage bën nañ ko Touba ñetti forage la lañ programme ak benn boo xam ne man mii lañ ko mayoon ma war ko yóbbu ca sama sanj ba ca xisnul abrar yàlla def oto hôpital Matlaboul Fawzayni am jafe-jafe ndox te xam ngeen ne procédure état day yàgg may leen nañ bàyyi sama bos yóbbu ko foofa boobu bënn nañ ko te wax nañ ne bokk na ci forage yi ëpp ci dëkk bi dana ëpp hôpital ba kon dana dugg ci biir réseau bi beneen ba ci des it ngaabu na lañ ko bënn moom itam dañ koy connecté ak réseau bi mu dugg beneen ba ci des dañoo gisoon ne jafe-jafe yi li ci gënoon a metti mooy diggante daarul xudóos daarul minan xaaxira ak sancaan yi rawat na fu mel ne boobu ndax dafa am ginnaaw jàpp ay kër ña ak Daaru Rahmaan ak ba ci kaw ba ca ndaamaatu moo tax bi loolu amee ba sëriñ bi joxe ndigal euh, sëñ Ahmadou Mokhtar itam ñu ngi koy santaat foofu ndax def na fi ci taxawaay bu mat ndax moo joxe ndigal joxe benn pàkk ci biir Daaru Xudoos ñu bënn fa forage ba ngir forage bi bu noppee nee naa leen teewa yi nga xam ne état bi joxe na ko mu ëpp 30 kilomètres li ci gën a nekk priorité mooy nañ fexe ba mu dugg ci biir Daaru Xudoos jaar kër Sëriñ Souhaïbou ak si biir pénc ma dem Daaru Minam jàll Xayra ba fa mën a jàll mu continuer dem Touba mosquée bu ko defee loolu xëy na bu duggee ci réseau bi dana ci mën a indi soppiku beneen ba ca mooy bu ngaaw bi bi ci des mooy boobu ren moom itam noonu lañ koy xëcc yëpp daje. li indi li am jafe-jafe rek mooy wàllu réseau bi réseau bi ñëpp xam nañ fi mu toll li ci yàqu dafa bari ndax bi ñuy wax ne 40 pour cent ci ndox bi day duggaat ci biir suuf si loolu yàgg na bokk na ci li indi jafe-jafe nab bi waaye loolee itam sëriñ bi joxoon waxoon na ci ak président ba dox nañ ci ay jéego yu bari étude bi li war a jële ndox mi Touba bokk indi ko ba Touba étude ba noppi na li ci des ak mooy étude réseau bi nga xam ne moo ne biir Touba te ñoom ña nga ca xëy na mën naa am balaa yàgg di ay weer wala ñaari weer ci ni ñu ko waxee woon ci lañ ca nañ ko waxee jox nañ ko daal ña ko war a liggéey du ma dugg ci dat yi rek loolu képp ci des bu noppee ñu xam ne li koy liggéey nangam la bu boobaa nag moom da koy jébal sëñ bi sëriñ bi nag mooy xam ba xam da koy woote taalibe sëñ Tuubaa yi def ko wala dee bàyyi nguur gi def ko waaye. bu noppee ñoom ba jébbal ko ko daal diirlu ko ci lu lu lu mu ci dogal rek ñoo xam ne mooy mooy na war a demee waaye lañ ca waroon def ñoom def nañ ba ca des it doonoon jafe-jafe mooy nab bi wax naa ko barki témb bi ma bi yónnee ci moom def nañ ci yitte moo ko assainissement bi ndax lu ma ñetti at wala ñeent waxoon naa leen leneen assainissement Touba de dara jiitu ko ci li ñu war a def ndax màgget gi diir bu gàtt daa dugg ci nawet fii may wax ak yow nii màggat gi ci catul wax set la ne wax set na xam ngeen ni mu baaxoo bu fekkee ni mu baaxoo demee ni la demee dëkk bi dana fees kon loolu problème bu rëy la def nañ ci yitte état bi génne 23 milliards yu jëm ci assenisma bi boole ko nab bi nab bi moom tàmbali nañ ko forage su bari tàmbali na di pompe muy dem ci réseau ba di dem ba am na yu bari yu tàmbalee wàcc am na kër yoo xam ne seen ndox kër yi génnoon nañ seen borom génnoon nañ ca ña ngi dugalaat seen i bagage kon sëñ bi yittee nit ñi rek ay itteem armeel ya demal na ba am na ñoo xam ne seeni waajur mootuñ fa àgg nag ndox wàccoon na dama xamaatu bi mu tawaatee nag waaye wàccoon na kon loolu jéego na te gis naa forage sa war a doon fukk ak benn lañ ci defaragul sii si moo fonctionné waaye lu bari jot naa wàcc ba wax na ne wàccagu na lu mat amet kon foofu moom mel na ne yàlla def na ci tawfeex ba incha allah dana gën a wàññi lu bari ci jafe-jafe yi assainissement bi it chinois yi nga xam ne président Abdoulaye moo leen indi ci dëkk bi ñoo yor liggéey ba kon loolu itam dañ ci soññ ñu yor assainissement bi ñu taxawu leen fexe ba lu ñu mën a gën a gaaw fii ak màgget gi effort yu ñu mën a def rek fexe ba ndox mi wàññi ko ndax màggat kat bu nekkee ci biir wax sax dana jafe ndax mbedd yëpp amut assainissement am na ci mbedd suuf yu bari te nit ci mbedd suuf yi lañ daa jaar mbedd suuf yi nag bu fekkee yëpp dafa taa dana gën a jafe kon lu luñ gën a mën a góor góorlu fexe ba nit ñi conditions yi nekkoon daaw ci lu metti mu bañ a amaat nañ ci góorgóorlu donte le rek jéego bu rëy am na ci ndax 30 bi xam ngeen ne lu itteeloon sëñ bi la yàlla def na daanaka àgg na. yaakaar naa bu fekkee des na it bëri xañ na benn point moo ci desoon te foofa dañ faa war def benn centre bu mag boo xam ne la muy jël dafa bari te déggoowu ñëw na ñemoo ñemoom foofa waaye la ci des lépp wër na dëkk bi te loolu dana wàññi du bari beneen ba ca desit ak cant lay doon ndax sëriñ bi itteem jëpp mooy Tuubaa amul soxlay boppam maa ngi fàttaliku tali bi ñu koy defal ca Tuubaa Mbul ci jamonoy Cheikh Sidi Muxtaar laa xamoon farata ji sëñ bi sàkku ma dox ko ci président ba yàlla def mu nangu ko moo yeneen i tëli la woon waaye xam nga projet di état ni muy guddee ba bi muy bi muy sotti bi ñu koy bi ñu koy accordé sax boobu Cheikh Sidi Muxtaar rek waaye bi ñu koy tàmbali xëy na daaw la diggante daaw ren lañ ko tàmbali liggéey ba sori na waaye li ci yéeme mooy ba président ñëwee di ko wax sëñ bi sëñ da ko ne bu fekkoon danaa am soxla ne ma ne loolu jenn yitte jooju laa waaye nag amu yitte bu ngeen ko defee baax na bu ngeen ko defutit lu wàññi dara li ma gën a daal mooy lu ñu def nañ ko def biir Touba kon kooku Touba kooku itteel ci biir loolu itam yi nga xam ne ñaan na ko ay tëli yoo xam ne ñu ngi koy def ci biir kon am na ci yoo xam ne sotti na te itteeloon na sëñ bi ndax yónni na ma ne ma damay day soxla yu ma ñor. ndax barab bu ci nanam demee bu ma soñoon ñu talil ma ko ndax dëkk bépp lañ bëgg tali waaye xam ne lépp kenn mënoo ko yàlla mi ko mën sax defu ko waaye nag ay priorité di am bokk na ca Daarul Karim bi nga xam ne Cheikh Massamba moo ko sanc ci ndigalu Serigne Touba moo Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadil la boole woon muy tindoo di ak ndindi incha allah bu àndee dogalu suñ borom Serigne Cheikh gi ni toog teewal fi Serigne Mamour suba danañ tàmbali liggéey ba entreprise ba ko war a def jekk na suba danañ tàmbuli liggéey ba bu ñaareel ba it mooy yoonu tindo di tindo di ni ma ko waxee ñoo bokk leen diggante ma Mahoud Moustapha mooy dëkk bi mu njëkk sanc xam ngeen la tax mu bàyyi ca tuba xusnul ma ab da tudd kon tindo di waxuma lañu fa dëkk waaye bu doon génn kër sax yayoo ni ñu tëlli ko ndax nam demee fenn waru ko jitu ba ca desit mooy bi jëm ci Baye Fall njabootu maam Cheikh Ibrahima xam nga ñoom duñ jàmbat duñ laaj duñ wax duñ ñëw ci sëñ bi sax ne ko bëgg nañ nangam joxe addi ak dégg ndigal lañ seq sëñ bi waaye sëriñ bi nag ci yërmandeem ak xam seen pëstéef seen taxawaay moo tax mu defoon ko yitte. ba moom itam sotti ne bu subaa danañ ko tàmbali ak yeneen yi nga xam ne moo war a xëttale autoroute bi moom agsi ci biir dëkk bi yi nga xam ne nag ñi ngi ci xëy na ñi ngi ñaan déwén wala déwén jéem mu sotti te ñor na sëñ bi mooy corniche bi nga xam ne moo nekk Touba ni ñu defaree yoonu ndindi bi ñu fexe ba corniche bi wër dëkk bi ba ca dolli ko mooy 120 mètres bi nga xam ne Serigne Saliou Mbacké defal na ko mu wër Touba gépp loola def ko autoroute bokk na ci yi nga xam ne ñor na bi kon daal ñi ñaan ci yàlla ci barke Serigne Touba yooyu yëpp niñ ko diggee ne ca lépp sotte jàmm te bañ am benn gàllankoor fi may jeexale rek mooy ñaala taalibe yëpp ñu am ak fekke ak kàttan ak wér ba àgg ca ak jàmm ba li ci Sëriñ Tuubaa digle ñu mën koo defe nu kawe seen jortu te xam ne incha allah sëñ bi ci yërmandeem ren ji màggal gi yaatal na ko ba nga xam ne quartier yu sori yi nga xam ne ñooy sancaan yi bëgg nañ fenn fu ci ne ñu gën a dund màggal gi ndax xam na ne ña ëpp ci ña dëkk ñu néew dool lañ la Sëriñ Tuubaa waxoon ne Tuubaa ku fi sam xel indiwu saw xel indi la fi looloo leen fi indi am na ci ñoo xam ci tumuraanke gu métti lañ nekk moo tax ci ren ji incha allah ci commission culture ak communication benn nañ ci benn bànqaas boo xam ne waa Hizbut Tarqiyyah ko coordonné mu aju ci commission boobu ñu fexe ba def ay baas lu bari ci quartier yi di fa yëkkati alxuraan ji xasida yi ni ko sëriñ bëgge waaye di fa def ay teraanga ba ñuy néew doole te mënaluñ seen bopp teraanga ñu koy defal seen bopp ba nga xam ne ka nekk ca fa gën a sori ak ka ci biir dëkk bi dana bokk ci biir màgget bi noonu daal la ko sëriñ bi bëggee di ñaanal bu baax rek ñépp ñu dugg ci ak jàmm te xam ne ni ma ko waxee rek ndégalu sëriñ Touba la ndax sëñ bee ko daa defal boppam bi mu ñibbisee Touba itam as Cheikh Mouhamadou Moustapha liggéey ba ne ko sëriñ Touba daa defee as Cheikh Mouhamadou Fadil nag moo ko wote Touba indi ko li li ñuy wax ijtihaad la ngir bëgg ñëpp jariñ ci ni mu ko waxee ci làmmiñu boppam ba mu bàyyi ko fi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké woye liggéey ba Cheikh Abdoul Khadir Mbacké li muy gàtt gàtt danaa wax ne si Maodo Moussa moo ko wax ne ko sa baay de nee na ma lu baax lu baax baaxe na fu ne waaye sakkane na Tuubaa mu daana moo tax lépp lu may def rek mooy koor di kori di tabaski di màggal di gàmm moo koy defe Tuubaa mu bàyyi ko fi Cheikh Saliou Mbacké ñëw lam ci wax mu ngi ci bànn yi ñëpp koy digg Serigne Touba nee ñaar fu ñu dend kii di ko dundal kii di ko ñàkk dundal waxtu wu ne ka koy dundal di gis lu muy tiime ka ca ba mu fi bàyyi ko as Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw kuréel gii di saytu màggal gi te yàlla def ma nekk ku xeebu ànd kook ñoom jiitewu ko sa ndax. baatu président comité organisation bi moom mosoon kenn dootuma ko wooyee moom bu mënta ñàkk rek jëwriñ doy na ndax yoon wi moom ni ni mu doxee rek mosoon lu àdduna soppi ko soppi ko loolu duñ ko soppi mosoon daal jëwriñ ji ñu koy wax te bañ a wax président comité organisation bi bu dee li ci des nag mën naa wéy ni mu daa doxee. ginnaaw bi ak Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké ñëw yàlla suñu borom dolli ay leeram dolli seeni leer moom it ñëw gën a dëgëral liggéey bi gën koo sàmm ba mu agsi fii di ñaan la ak du mu Mountakha mi nga xam moo fi nekk te yàlla def ba ñu taxawal kuréel gi mu yëkkati woon kàddoom yu rëy ya ca biir kër Sëñ Tuubaa gi kilifa yu tedd yi ma àndal yëpp ku ci ne moo la woo jox leen di gën nee la ànd leen mu ndax bu ma soñoon mu dem kon dem gëm bëggoon ma ne liggéey bi ñu ngi koy am ba yi teg ca it ne mooy boroom digal li ba fi ne dama koy wax kon yàlla na fi yàgg te ànd ak te liggéey bi xam naa wax ñi gudd na sax waaye nag màggal gertoon loolu ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu